borom xam-xam yu mujj yi jox nañ ci misaal yu baree bari am na ci ñoo xam ne dem nañ ba def ko muy lu nekk lu physique am na ci ñu dem ba misaal ne masiihu dajjaal mooy Israël yaa jooj ak maa jooj am na ñu def ba def ko Europe ak Amérique ndax kii day woote waa ak yàlla kii topp ci moom naan ko wax nga dëgg ki naan ko waxoo dëgg te ki naan wax nga dëgg ak waxoo dëgg dana jaxase bopp nit yi ba kenn du xam kii ku muy waxal bu ngeen xoolee adduna bi fii mu toll ni Israël bindoo ak ni Amérique bindoo ak ni Europe bindoo ak li ñuy def ci jullit yi ak ni ñu leen di faagaagale ak Palestine bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne masiihu dajjaal dana fa feeñ dant yàlla insa buy feeñ ci réewum Syrie lay feeñe ndox mi day toq ci kawar gi mu teg ñaari loxom ci ñaari ñaari mbagg malaayika yor benn xeeju wurus foofu lay dàq da dajjaal ba ci baabu lu bin ci Palestine fa la koy dóore xeej ba mu jaaxaan bu ngeen xamee bu ngeen ko seetloo barab boobu territoire yooyu muy fi gën a ñàkk jàmm fa la xeexoo ba gën a bari kon da ngay gis ni sallallahu alayhi wasallam jox yi mboxoon ñu ko def mu nekk lu war a concret ñi nga am dañ koy def mu nekk lu parabolique kenn ku ci nekk am nga ay misaal su ngeen seetloo ñu koy misaal ci banu Israël ñenn ñu ko misaal ci Amérique ngeen xale américain yi seen dollar bay pyramide boobu ñu jël nga xam ne benn bët lañ ci def misaal yu bare bari boo ko xoolee nekk na la tond loo xam ne mënoo weddi ñuy wax loolu ala kulli haal sallallahu alayhi wa sallam woon na bokk na ci màndarga gi àdduna tukki su ngeen ko gisee xam ne léegi àdduna tukki buñ demee bañ yëkkati xam-xam feeñal ak réer lépp ci ñuy woote ne ay jullit lañ ñaare koo ca laaj farata ak sunna ci jaamu yàlla du la ko wax te loo leen laaj ci àdduna ñu misaal am na ci xale yi ñoo xam ne ñaata équipe bu football moo am ci àdduna bi boo leen ko laajee léegi ñu wax la ko équipe bu nekk ñaata joueur la danañ la ko wax ku ci feebar ku ci am jabar ku ci amul jabar dinañ la ko wax te ñu ñaari am na boo leen laajee faratay julli ñaata la duñ la ko wax mais jëmm joo xam ne mën naa tas motooru oto tasaare pièces yi raxas ko benn par benn di ko roofaat ba mu doonu oto ko mu boo ko ne faratay julli ñaata la du la wax ñaata la ko mën yëpp boo ko seetloo dalee dana la ko jox dana la jox rek ay mandal ay na siwo dèjà dañuy yëkkati xam-xam <coughs> feeñal ak riir su boobaa bokk na ci mandarga yooyu xam-xam duñ ko nocc ci dënn ñu amoon xam-xam waaye borom xam-xam yi dañuy dund ba faatu kenn du leen laaj seen xam-xam ña jàngul dara taaw di ubbee di xam ngeen ne toll nañ jamono yoo xam ne daanaka ki xam ki xamul kenn dootu delloo laaj léegi da nga gis nit ñu laaj ko ci diine masala moo xam ne lam cay wax da ngay dar sa bopp bëgg a dugg ci kam da ñoo xam ne dañuy yokk addis yonent bi sa alayhi wa sallam ñu di déggee aaya alquran yi ngir jëme ko ci ay jëme ko ci ay côté politique ak yu ni bindoo ko xam dara man sax maa ngi fàttali ko ci ab yële. bi pape bi jógee Rome te doon ñëw Sénégal ñuy wax borom xam-xam yi imaam yi nan leen wax nañ ci rajo bi daal lu waral nit ñi gàttandu gan geeg maa ngi fàttaliku am na ci ko demoon ba yokk addi si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa man kaanu yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim dayfahu mu daal di koy yokk walaw kaana kaafiran mu ne ko loolu de yaa yokkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku gëm yàlla gëm bis pénc na teral ganam mu daal di koy yokk ne doonte ab yéefar ne ko yéefar kay sëñ bi du kanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na xew-xew mas a xew ci lislaam sallallahu alayhi wa sallam defoon ko ñu bari bari sukkandiku ci muy chrétiens yi jóge woon najiraan te ñëwoon waxtu julli jot sallallahu alayhi wa sallam may leen ñu def seen mees ci biir jàkka ja nga dégg julli ñu bari wax naan tolérance l'islam sallallahu alayhi wa sallam mayoon na chrétiens yi ñu def mees ci biir jàkka ja ma di jox première misaal di la wax ne boobu suratu baraa wàcc gu baraatu min allaahi wa rasuli rasuli lisina aatu min al mushrikina ba aaya jooju suratu baraa wàccee l'islam mayetul benn yoon kurul jullit muy def meesam wala def ak julleem di ko def ci biir jul jàkk histoire boo ko dee jàng da ngay jàng lépp ba mat te booy wax nga wax dëgg gi yëpp ngir yàlla wala kenn jox xaalis tax laa jàng nëbb ci lislaam dara feeñal ci lii soo ko dee def da nga tase ak suñ borom su boobaa atteem yooyu nga nëbboon bu koy rek léegi yow dana wexxat te su boobaa kooka kooka la neexaloon alal wala nga bëgg lu ko neex su boobaa du mën a tinu du mën a taxaw ci kanam yàlla naan ko bàyyil waa ji kon nag ni jamono joo xam ne sallallahu alayhi wasallam neewoon na da ngeen àgg jamono jooju ku téye sa lislaam te mu dëggu ci yow dana mujj méttee ne ku ngëb xalu safara waaye nga téye ci boo ca téye kenn yàgg rek moo lay dugal àjjana bu fekkee jàmm ci biir makkaari bu xufatinaaru bi shahawaat sallallahu alayhi wa àjjana ay naqara ko peeg bala ngaa dugg àjjana ci ay naqar rek waaye muñ rek moo lay jàllee bëgg a dugg àjjana boo ko dugg boo ca duggee loo muñoon da nga sant yàlla yàlla may la may la nga waaye nee sawara ay bànneex a ko wër de sawara moom da def li leen neex rek fii ci àdduna doo am benn problème loo bëgg a wax wax loo bëgg a def def waaye boo ci xasee tàbbi rek jeex na dootu ci génn yàlla nañ suñu borom musal yakuunu alxaabidu fii ala diini kal xaabidi ala jamri wala sallallahu alayhi wa sallam nee am ngeen juróomi juróomi occasion na ngeen ci farlu bala ngeen koo ñàkk juróomi occasion yi ana mooy lan yow xale bu góor bi yow jànq bi sa ndaw goog yi nga yor sa ngone goog nga yor gaawal jaamu ci yàlla gaawal jox ko sa borom gaawal tabax ci ci àdduna lu waral boo màggee doo boo màggatee doo ko rëccu sawaaba ko xam la xaram bi ci topp mooy bi nga wéree wér gu nekk wéré bi moo ciy topp bi nga wéree góorgóorlu jaamu yàlla liggéey ci àdduna lu lay may jàmm àdduna ak àllaaxira walla waxtu feebar bi agsi ñàkk boo gis maanaam am am boo gis ñàkk ci mujj la yàlla defee nga am waaw wala sarxe ci def ci lu baax génne ci asaka jaamu ci yàlla balaa waxtu ñàkk di agsi yàlla daf laa may alal at mi mat na nisaab bi mat boo bañee lu doo ci génnee asaka alxuraan nee na ñu lànkoon ba ñu génnee asaka ay baari or lañ koy def wala baari xaalis du ko ñaas ci seen faar yi ak seen ginnaaw yi naan leen mos leen alal ji ngeen doon dajale dañ caa génne ak ak yàlla tey dañ koy boyal ba mu tàng ñu leen ko ñaas sa temps nga am gaawal góorgóorlu ci jaamu ci yàlla balaa occupation yi di ñëw am jot yër bu gàtt la ko nit def ñàkk ak jot sa dund gi benn yoon nga koy am doo ko am ñaari yoon gaawal lu ci dund gi def ci lu baax jaamu ci yàlla liggéey ci lottee def yi ci àdduna léegi tey dund gi jeex àdduna sallallahu alayhi misaal na ko ne boo jëloon ñaari ay balance tey teg benn poids bi fii fàq laafum yoo yoo ni mu tuutee tuuti nga fàq mel na laaf mi teg ko ci benn côté blanche boo ko peesee ak àdduna laafum yoo mi dana ëpp doole àdduna ah kon xanaa àdduna wari su ko teg fenn romb na benn bis romb gàtt bu dee lu mel na xar wala bëy bu métti salaale alayhi wa ne xanaa kii de borom soxlaa tuuti ñu ne ko ñàkk ko soxla moo tax ñu sànni ko fii mu ne ni ko ñàkk soxlaa ni yàlla ñàkk soxlaa adduna moo ko waral adduna la ci kanamu suñu borom moo doon penc moom ñu wax léegi buñ fa taxawee da nga gis jékki-jékki gis jëmm ju ñëw bañ yaa ngi màpp wert bët yi di xelliku lex yi màpp mu mel melokaan woo xam ne ñaaw ñaawaay boo xam ne kenn a misaal sallallahu alayhi wasallam xool leen kii ñu ne ko yàlla nañ yàlla musal ci kii ak ñaawaayam bii xam ngeen kan ñu ne ko kii mooy kan yow yàlla mooy mu ne mooy adduna ma ngeen taxoon ngeen di añaanante ak di soxorante ak di wanante ginnaaw addunaa ngi nii tey képp koo xam ne kii foo ma sa jëm loo ma sa def addunaa la ko tax def su boobaa nga dal di rëcc kii sëñ Badara damaa foog ne exposition bi de li ñuy exposé ci wàllu ñaari way dencante yi mel na ne loolu doyoon na masaayidu yawmal xiyaam bi nee naa neel nee la moom dafay doon loo xam ne ay tomb ki bett nga ciy laal ndax moom mën ngaa toog une semaine di ci wax te du jeex une semaine. kon sëñ bi doon présenté nag comme dafa waxoon ne euh, bu ñu demee ba ci kanam bu ñu exposé am ay débat dana am ñoom dañu soxlaa jël micro bi. war a poser question fekkee dafa am question yi ñu war a poser ñu dox micro bi ñooñu suñ ci mënee tontu tontu ci su fekkee ni dafa am ñoo xam ne dafa am tomb bu ñu romb te tomb bu ñu romb te lañ fa wax leerul ci seen bopp wala am loo xam ne wax nañ ko am ku ko dégg te dëppoowut ak ñun gisewul noona wala lam jàng wuuteeg lu ñu jàng mën nañoo wax ni tey man nii laa gisee wala lii laa gisee su ko defee ñu delluwaat rek ci ceen ak ak leer incha allah su ko xam naa bu ñu ci àggee waxtu julli suñu tontóor tuuti ci laaj rek xanaa ñu après léegi ñu daal di julli te ngeen may ñu ñu yeewee ko ndax tamit xaw nañu sonn tuuti ci jël bisimilah kooku lu mu wax waa kay sëñ bi day yeewi waa kay sëñ bi jërëjëf jërëjëf waaw nga nuyu nuyu ñu sëñ bi bu baax waaw bisimilah bisimilah waaw kay jërëjëf jërëjëf jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala. aleyhi salaam wa rahmatulah. soo ñu ngi lay nuyu bu baax. jërëjëf jërëjëf di la sant. Mm-hmm. di ñaan suñu borom bu ne sa xel. Mm-hmm. xam-xam bi nga xam si yaa koy tasaare ci lislaam suñu borom fay la ci ngeen gi fay te sa soppe boobee muy suñ sàmbay suñu borom yokk ay leeram yaa ni kontaan na bu baax ci jotaay bi li lay laaj nag dañuy laaj euh, ci Musab ibn Umayr yi ko doon saaba bu baax bu gën a xam dara ci ak dundam ngir mu yokk suñu jàmm yàlla bu paree mbokk mi mi ngi laaj ni moom ko benn Musab ibnu Umayr Musab ibnu Umayr soo demee ci Musab ibnu Umayr soo demee ci téere bu tudd rijalun hawla rasul indi nañ fa ak dundam ci anam bu am solo ñu ba mbëssal Musab ibnu Umayr ci Màkka la juddoo nekk faat ndeyam ak baayam suñ borom azza wa jalla dogal na Musab tuub dugg ci lislaam ndeyam ak baayam ni dañ koo dëggoon lool lool surtout ndeyam daa amoon alal di ko xotti lii yére yu rafet di ko toppatoo bu jég ba bu ñu duggee ci lislaam ndeyam ne ko bàyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne ko duma bàyyi Muhammad duma ko bàyyi kat duma bàyyi lislaam tey duma ko bàyyi ëllëg ndeyam daal di dem ca naaj wu tàng wa di toog ca naaj ne ko fii ci naaj wu laay toog ba dee soo bàyyiwul lislaam bàyyiwoo Muhammad mu ah, Moussa li muy bëgg bëgg ndeyam ak bàyyam dafa ñëw ci ndeyam ne ko yow sama ndey jógal dellu ca kër giñ naa ci yàlla ni boo yoroon ñetti bakkan toog ci naaj wi ba dee dellu toogaat ca naaj wi ba dee ba muy ñetti yoon lu tax ma bàyyi lislaam lu tax ma bàyyi Muhammad sallallahu <coughs> ndeyam na daal di ko kon sama alal ump na la dootuma la xotti li yére dootuma la jox nga lekk la jox nga naan mos ab mu gën a tumuranke tumuranke la deru xar deru xar lay tëcc ba mu nooy mu woddoo ko def koy ay yére xanaa bu naaj bi tàngee day xëy xuñi ci yaram sallallahu alayhi wasallam bu ko séenee muy ñëw mu ne cëy yàlla xool leen kii bëgg yàlla li ko yàlla jaral xool leen mos ab mu rafetoon ma ngeen xamoon génnee màkka gone yi jigéen yi ci Makka gépp dañ koy waxtaan ngir rafetaay bi ak coloon bu jekk bi te yàlla rek jaral ko mu dem bay woddoo deru xar tey boo ko xoolee dootu ko xam ne sax ibnu Umayr bokk na ci ñi gàddaay ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee Makka ñëw Madinatul Munawwara ànd ak yonent bi sallallahu alayhi ci xare yi ba ci xaswatu Uhud xare bi gën a metti ci xare ju jullit yi xare bi gën a metti ci xare jullit yi xam ne rey nañ ci ñoom juróom-ñaar fukk ci la Musab ibnu Umayr faat bi faatoo ñu ko koo sàng gis nga yére yi mu yor buñ ko ñoddee muur bopp bi ci bit ko ñoddee mu ñëw ci tànk yi bopp bi nekk ci bit foofu la mujjee ci tumuraan sallallahu alayhi wa sallam ne ñoddi yére yi kon muur bopp bi bàyyi li fee teg la ca des ni daal faq am ñax daal di koy muur te kaw yaram li ko tax a faatu mooy sallallahu alayhi wa sallam di gën a Xaalid ibnul Walid seet na porox ndoll boobu fettkat yi bàyyi place bi leen yéen sallallahu alayhi wa sallam taxaw loo woon ñu wàcc place ba Xaalid ibnul Walid daal di ànd ak kuréelu soldat yu wër wër julli yi nag di leen def lu dara jarul. Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube Tawfekh Production de suivre avec nous l'actualité nationale internationale.